asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 22 avril 2020 ñoo ak yéen ci yëgle kaay yi mu mel ni tey sunu lamb la ñuy xëy dooreeti ko. yëglekaay bi nag tey fa mu xëy ñëw dafa fàttaliku loo xam ne daal amoon na fi nekk loo xam ne daal lu historique la combat boo xam ne kenn dootu ko fàtte muy moment yoo xam ne daal neexoon na trop trop trop ci waa lamb mu doxoon ci diggante ka nga xam ne nii mooy Yaxya Jóob Yékini mu fi nekkoon roi des arènes ak Balla Gaye 2 ba ko danoon te nekk roi des arènes ñoom ñaar la yëglekaay bu ñëw ci seen combat ba mu nga amoon nag 22 avril 2012 la amoon fa nga xam ne moo di Demba Diop moo tax yëglekaay bi tudde ko un combat de maanaam combat boo xam ne daal foo ko takkoon ci ëgg ak ak màggaay weesu na ko moo tax yëglikaay ba ñëw na ci ñaari mbëre la ñu leen joxoon ci wàllum xaalis lan lig Nicolas génne woon tamit bari woon na trop deux cent quatre-vingt-quinze millions daal ñaar téeméeri millions ak juróom ñeen fukk ak ko teg ko ci taabal ja yaxi jom yi ki ni ñu jox ko cent soixante-quinze millions maanaam téeméeri millions ak juróom-ñaar fukk ak juróomi millions Balla Gaye de cent vingt millions moom tam lañ mel ni kon daal combat booba moom loo ci mën a dégg xaalis bari woon na ci côté ñaari mbëri waaye seen face à face ya moom moom ba ca njëkk moom jàppal foofa daal keroog moom meloon na ni ci luy bax ruq ba sedd amu foon ndax nag la mbir ma amee woon loo a dégg maanaam daal croisé yi jóg dóorante ba sax li nga xam ne nii moo doon wàllum deret daal di fay tuuru ba tey yëglikaay baa ñëw di ñu fàttali histoire booba mel ni ki nag Balla Gaye 2 nag ba mu fa jógee nag daan Yékini daal ci la dugg ci yi nga xam ne nii moo di histoire maanaam nag wàcc Yékini dan ko moo tax ngañ daañ daal ngañ daañ ma nekk ca i rajo moom la mu xamle daal nee Balla Gaye réussir na ci lamb loo xam ne ne ni daal maanaam ci mbër yi moom pour nit réussir ko nee loolu moom amul wala ñu fa jaar ñëpp sax bañ fa jaaree dañoo essuyer te bàll ba mu fa ñëwee moom dafaa jàll mooy daan Yékini nekkoon lu jafe-jafe lu kenn xalaatu kon mu def ko ngañ jaañu ko wax Thierno Gueye ma ko yor nag ci wàllu mystique di ànd ak Balla moom nee na Yékini ci boppam xamoon na ne daal Balla Gaye de da koy daan Thierno Gueye moo wax loolu moom moo nga xam ne moo yor mystique ba waaye Moustapha Ndoye ma nga xam ne tamit wàllu manaat la féete woon ca yax jub Yékini bokk écrit Ndakaaru moom ci boppam dem dem na ba naan ko samay tànk daal maanaam taxaw defatu ko wala boog dëgër dëgër defatu ko balaa ñoo bëre moo tax yëglikaay bi nag ñëw na ca nee na bañ ca jógee nag boobaak léegi maanaam 2012 ak léegi juróom-ñetti at ci la toll ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 ñàkk na fi couronne roi des arènes am la nga xam ne nii moom la jëlewoon ci Yékini waaye Yékini tamit fa la jaare boo xoolee presque benn combat la bëréwaat daal di fa jaare ci atum 2016 dem retraite mu mel ni kon daal loola nekkoon na bés yoo xam ne ni ci làmb moom fàtte ko dana jafe sunu nag moo xëy ñëw tey dugal ñu ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom fa nii nit ñaa ngi koy yaal yaalee muy papi général ci digganteem ak Assane Ndiaye wax ya nga xam ne wax na ko muy wax yu rëy rëy nit ñi jàpp loolu ak nga xam ne nii ñooy adversaire yoo xam ne bëri na ak ñoom mel ni ki nag papis moom wax yooyu daa mel ni day jàppal Assane Ndiaye daal mer na ca lool moo tax nag fa mujjeek moom mooy porte ko plainte ñu dem ca yoon daal ngir ñu lijjanti mbir mooma ndax daa jàpp ne lii ko papis wax moom waru ko ko wax papis nag jamono jooja mu ngay nee na saagawul Assane Ndiaye tey tey itam dépassé wu ko moo tax daal mu ngay jéggulu yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw ba tey wax nu lu mel ni kii noonu keneen koo xam ne nii moom wala meneen mbër moo xam ne moom dañ koo téewoon depuis 2019 ba tey ci combat muy ka nga xam ne mooy Zambala mel ni kenn combat ba ba tey mënta am moo tax Abdoulaye Ndiaye nag may coordonné combat ba wala may coordonné jëy production moom jàpp na ne daal tée Zambala laat ne na moom loolu moom du question du xalaat maanaam kon daal xëy na su gisee leneen moom bu ko neexee mën na koo jël laat Ndiaye moo wax loolu ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb waaye dañ fay jóge ñun dem fa nga xam ne nii nag moo di record record itam daal daa ñëw tey ci ab ko koo xam ne nii moom jàppal daa mel ni day retraite am fi mu nekk nii daal at mi na ko muy Serigne Dia Bombardier ki fi dégg roi ñaari yoon record a xëy wax ñu ko ci gëstoob Abou Ndour 45 ans daal dina ko am ci mois d'octobre bi nga xam ne ca la ñu jëm te loolu bu ñu ca yeggee nag moom daa mel ni retraite moom ci Bombardier mu ne seetu koo saf naar fa lay jaare bàyyi bëre daal di jeexal waaye yëglikaay bi ñëw na ci moom ak combat yi nga xam ne nii jot na koo def ci carrière jàppal sunu lam na daal 18 victoire wala boog record a ko wax ne na 18 victoire la am moom Bombardier ak tamit juróom-ñetti défaite ba tey jigas toob ka nga xam ne nii moo di Abu Nduur keneen koo xam ne nii moom tamit day jàppal ci mbër yu mag yooyu ci la bokk record xëy na tey ñëw ci moom ci gëstu muy Tafa Gueye Tafa nag moom jàppal am na ay règlement yoo xam ne daal yu am ci làmb la ca ndoddum Tafa Gueye la jaare ñu dal di ko jël ba tey ji ñu koy appliqué bokk na ca li nga xam ne nii moom moo di jàppal la nga xam ne nii moom moo di dagg bi ñuy dagg mbër yi Tapha Gueye ci moom la mbir ya doore ca combat ba ak Tyson ca atum 1997 ca ndax nag temps yàgg ba nga xam ne jël na ko kër ci mystique ba jamono jooja ñu ngi daan dagg par minute 1000 francs waaye ca jógee nag gaaya ne léegi au de 1000 waaye 10 000 lay doon loolu lañ ne Tapha Gueye moo tax mu am leneen loo xam ne Tapha Gueye ba tey moo tax mu am mooy digganteem ak Baboy seen ñaareelu combat ba ba tey ca Demba Diop kere nag ñoom ñaar ba ba ne taxaw leen bëree Tapha Gueye taxaw fa mu Tafa Gueye itam ne fa mu taxaw du fa jóge ginnaaw daal lay wan Baboy ñu jëm kaw jëm suuf mu ne noonu lay def du ca jóg tey ba arbitre suuf lee di Sitor Ndour Baboy féete ko ginnaaw même tànk ya mu daanu gars yi jóge ci ne lii moom dootul am day jeex tàkk kon nag léegi tirage mooy xel di am maanaam balaa ñoo soufflé daal arbitre bi day tiré pile ou face ku ne jël fenn lu génn nga taxaw fa bëree loolu ba tey Tapha Gueye moo tax ñu soppi ko leneen loo xam ne ba tey muy ñetteel yoo xam ne Tapha tax nañu soppi ko mooy wàllum disqualification bu cinq avertissement amee ndax ku ne fàttaliku na digganteem ak Yaxya Jóob Yékini ca stade Demba Diop keroog daal jàppal Tafa Gueye avertissement ya bëri na génn ya bari te itam combat ba ah, ñi ñaam ci aw naqar lool lool lool ba tax na bañ ca jógee tamit ne nañ lii tamit day jeex de dakk lay def léegi daal juróomi avertissement moom ku ko am ci ab combat ñàkk ngay def maanaam dañ lay déclaré ne dañ laa daan mu mel ni kon daal Tafa Gueye règlement yooyu yëpp ci noddam la jaare dal di am record a xëy ñëw gëstuñu loola ci xalima ka nga xam ne moo di Abu Ndour waaye keneen koo xam ne nii moom fi mu nekk nii saf na sap ci yëgle yi ak site internet yi muy ka nga xam ne moo di Omar Kane rëg-rëg mu caaroy mu mel ni ki nag saañ moom di coordonnateur u parcelle mbooloo la mu xam ne daal nee na rëg-rëg fi mu nekk nii day nee na bañ ko moom nee na kenn mënu koo def tey bu ko kenn xalaat ndax nag mbër la ni mbër yëpp te mat na li mbër yi mat waaye leneen loo xam ne am na fi muy wàññi koog Mor Ngeer yëglikaay bi ñëw na tey moom sunu làmp fa la ñuy dellu wax nu ne nag ñi nga xam ne nii moo di saasa làmb ja moom dem nañ fa jël lu enveloppe bu toll ci cent mille francs jaalee ko ak njabootam ca Kaolack waaye tooyoon na fa ndax nag ka nga xam ne nii moo di mbay géey moom yaram moo daw na lool ba sax mu tuur ay xewal maanaam rongoñ yëggéen ndax nag ñaar ñoo xam ne dañ koo jege ñoon muy maire Mor Nguer ak ka nga xam ne nii moom moo di Aliou Ndiaye médaille ñoo ñi daal ñu ko jege ñoon lañ te génn àddina moo tax yëglikaay bi ñëw na ci ak ay foto mu mel ni kon daal jàppal la olof yi wax rek wala boog la borom bi wax rek kulu nafsin saayixatin mawtin jooju daal du mën a ñakk ndax loolu moom dogali sunu borom la dañuy ñaan kay buy ñëw yéex te fekk ñu ci moo neex sunu borom te itam nag mu ànd ak yërmandeem waaye itam geneen ñaan moom des na ko ñaan ba tey rek ndax desul jóg ci di ko ñaan muy coronavirus bii fi ñëw ne déjji déju ne du dem saa yu ñu xëyee muy gën a lëmbee yokk yàlla yow mi ko fi indi yàlla na nga ko fi jële ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa waaye itam gars yi nañuy moytu takk masque yi raxasoo saabu yi ak gel yi te lépp lu docteur yi wax nañ koy def ndax nag ku la jiitu ci néeg bu lëndëm boo dugg see moo lay wax fii ngay tooge man may wax biram di wax yàgg di monte kon ñun duñuy médecin nañu déglu médecin yi dëgër bopp nag ah wuurul te nañ bopp buy am barke nopp yuy sax wala boog bopp bu am barke moom boo bëggee dégg dëgg nopp yuy dégg cay sax boo ko deful moom mën ngaa mujj fu la naqari mbokk ñuy suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu baax Babacar ngeen àndaloon ci revue de l'arène bi Babacar ñu ngi lay nuyu. fay naa la biram di la delloo nuyoo di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp di la ñaanal jàmm di ko saxu mu mel ni yëglekaay bi di sunu làmb dafa ñëw ñun ci combat bu rëy ba amoon le 22 diggante Balla Gaye 2 ak Yékini. le 22 avril 2012 Balla Gaye 2 Yaxya Jóob Yékini mu nekkoon combat boo xam ne nii defe naa ne kenn dootu ko fàtte si anaalu làmb ndax la ko waraloon mooy Yékini fa mu toll woon. ci mësul daanu nekkul mbër mu am caractère mën a bëre lool am encadrement macha allah am fulla sul muy def ñu xalaatoon nañ kii est du bëre ba bàyyi bëre te de ko daan mu mel ni am na ñoo xam ne gëmoon nañ ko mais boo xam ne ne nii signature yaag lépp yëngutu woon mais Balla itam wane woon na la tax moom mu dëkk Yékini ndax ba mu ko dëkkee ba ñu taxawal ko ma ba dem na liggéey ñëw jàmmarloo ak moom ci bëre boo xam ne boo ci delluwaat nga xool bëre ba di nga gis bëre ba technique ba ca am waaw parce que boo xoolee Balla ba ni bëre bi jeex bëriwul ak ni ci tànkam ci dënn bi la bëreek moom mu yem ci ndigg li ba ni combat bi jeex mu mel ni avant combat bi dafa mel ni gars dañu njortoon na sax xamoon nañu mu mel ni Yékini xamoon na day daanu am na li xamoon lëndëm daal ci xel yi ba ci manager mi de Moustapha Ndoye waaw Tafa Ndoye wax na ki nga xam ne ni moom mooy Thierno Guèye di ku yore bàll ci mystique tamit xam ne xam ne ne Yékini xamoon na day daanu Moustapha Ndoye dana xam wax na ko te samay tànk taxawatul avant ñoo bëre la xam naa mu mel ni kon daal làmb la woon joo xam ne nii kenn dootu ko fàtte euh, te bés yu mel noonu làmb da koy soxla maaye nag ñoom ñaar ñëpp am mérite ndax bu dee yax yi jub Yékini la am ci image si làmb mbër bu ko roy rek defe naa ne di nga réussir sa carrière bu la yàlla jàppale parce que li ma la wax sànq rek am na discipline ci wàllum liggéey bi muy def fonk na ko respecté na ko itam professionnel na loolu moo ko indi ba fi mu nekk ba boo bi muy génn ñaar defet la génnaale ki nga xam ne mooy Balla tamit mérite bi mu am mooy ñëw ci làmb 2005 2012 nga nekk roi des arènes daan ay mbër yoo xam ne dañ daan leen ngañ na ko nee na li kon moo lay wan ne ñoom ñaar bi ñuy bëree da xam ne ñaari technicien ñooy bëri ñaar ñu mën a bëri ñooy bëri waaye nag gis nga fa mu mujjee Babacar mu mel ni la sunu lamb dafa ñëw ñun ci ki nga xam ne moom mooy papi général diggante ak Assane Ndiaye. waaye ñëw na ci tey ci plainte bu ñu ne déposé na ko ma Assane pour diggante ak papi général papi ko niñ ko gisee ci li yëglekaay bi wax mu ngi jéggulu waaye comme li ma si waxoon démb laa si waxaat tey rek biram maanaam li am solo mooy nañu xam ne ñun ñoo bokk Sénégal am na loo boo ko xamee jarul nga di ko génne déedéet même bu amee parce que am na loo xam ne luy tax ay xol di jóg luy tax ay plainte di am ay demante yoon di am bu la leeral ni mën nga koo denc ba loolu du am nga denc ko wala boog boo ko naree wax nga ñëw ba si biram nga ne ko lii ak lii ak lii yéen ñaar ngeen waxtaan ci moo gën wax ko public bi nit ñi di ko jot ñi duñ ko rafet lu muy jur loo xam ne du ko jar parce que Papis mbër la moo xam ne defe naa ne talent bi mu am ci bëri ak saf xorom bi mu saf xorom defe naa ne ah bëriwul mbër yu ko am yaa ngi dégg ci lit simple ñëpp xam nañ kat mooy Papis général lit avec frappe tamit mbër yi mu bëreel yabuñu ko ci yaa ngi dégg kon defe naa ne loolu image boobu war na koo garder bu baax a baax ko ñi fonk nañ ko trop par rapport ak làmba

ñu bokk nday bokk baay waxtaan papis bu baaloo nangu ne daa juumit àddina noonu la tëddee ah waaw mu mel ni tooñ lu mu rëy rek daal baal maa ko ëpp loo ci mënti dégg ñun ñuy jéggalul ki nga xam ne moom mooy suñu wéyjur ne ci làmb ji nekkoon ci làmb ji ak ñun muy Mor yàlla jëli ko mhm. waaw yàlla na ko yàlla yërëm kon gis nañ ñoom Mbaye Guèye ak Amadou Kati Diop ñoom Birahim Ndiaye ñi nga xam ne ne nii sol nañ seen ay daal dem ba Kaolack jaale ko xool ya tooyoon fa trop mu mel ni ko loolu mooy àddina comme ni ñu ko waxee rek yàllaa ko waxte du dañ maanaam ku dund da yërëm ko barke Nabil Moustapha mu mel ni ànd moom saa rafetee rek fii lay mujjee quoi Amina ciy topp Babacar ñu dem ci record mu mel ni ki nga xam ne mooy le roi des arènes Bombardier daal daa mel ni daal yi fi yaa ngi waaj a jeex nag waaw ancien roi des arènes parce que moom nekk na ko deux loo xam euh, ne kon daal moom retraité tam at ko parce que octobre bii di ñëw lay am 45 ans ah tamit li ma waxoon ci yax jub laay wax ci moom Bombardier parce que ku am mérite la ndax li mu njëkk def muy lu garaaw lu nit ñi war a jàpp mooy bi mu jógee ñu nekk mbër am na équipe yu ko bëggoon a jël fii dakaar mais moom dafa opté woon toog Petite Côte ba. Bombardier bokk na ci ñi poussé mbër yu bari ñu dëkk mbur ak li ko wër ñu resté foofu di takkee ngam foofu di ñëw Dakar di bëri parce que da koo def ñeneen dina dem ak du dem mu réussir ko. réussir ko ci carrière am nekk roi des arènes ñaari yoon nekk tamit mbër boo xa ne ku am hygiène de vie la boo koy wër boo demee si ba ma ji ku am yar la ku joxe cër la parce que man sama waay dañuy diggante lu ci lu bëree bëri mi nekk koo xam ne daal tey dama naan même bu demee retraite mois d' octobre tamit du waa waa lamb dinañ am lu leen naqari ndax li tax mooy Bombardier ku ko xam combat am ci fulla la koy teg day ñëw rek teg la li mu am ngeen jóge fa mais loolu loolu lu tëgg tas biram waaw ba léegi sax dafay mel ni guddi guddi muur dañ ko gën a dégg su boobaa waaw dinañ ko gëj dégg xanaa xale yi fa des rek ñu jéem a góorgóorlu parce que itam am na relève bu fa nekk ay xale ngi ñoo xam ne ci petite côte bi yaakaar na ne ñoom pakalaa ngi fi bàyyiguñu làmb ñoom assurance a féete suuf yaa ngi dégg a liggéey parce que itam am nañ koo xam ne daal bu ñu xoolee ci moom pour man war nañoo mën a jàll muy Bombardier loolu am na solo Babacar ñëwaat ba léegi record mu wax ak ñun ci nga xam ne moom mooy euh, Moustapha Guèye tigre de Fass. waaw deuxième tigre de Fass ak ay ndogal yoo xam ne bi ko seen di jël moom moo bëree combat ya tax ndogal ya am ne kon léegi ku tardé benn minute ci sa préparation mystique yu mel noonu dix mille francs ngay fay yow mii menaat sa nga xam nga bu baax li may wax ca la règlement boobu jógee yemuñu ca bu ñu ñëwaatee tamit digganteem ak Baboy seen deuxième combat 2006 gis nga kera ñu ne ko taxawal fii tafaane fi mu taxaw du fa jóg Baboy féete Baboy fañ ko taxawal mu taxaw fekk mu ba tigu ñu coow coow coow li jàpp mu ne du ba tigu fuñ ca mujjee arbitre suuf le muy sétoor Baboy féete ko ginnaaw daan ko ramasser tànk yi ñu gars yi nag léegi loolu day jeex pile ou face ay am. ba léegi yemuñu foofu Tafa Gueye indiwaat na leneen avertissement yi. waaw avertissement yi tamit boo xoolee léegi boo amee cinq da ngay ñàkk combat. loolu li ko di Tafa Gueye woon ci digganteem ak ki nga xam ne nii moom moo di Yaxya Jóob Yékini parce que démb Jóob lañu bëree defe naa ne kera avertissement yi bëri trop trop ba nit ñi maar ci affaire ba mu metti leen trop. yaa ngi dégg coow ko CNG tamit ne léegi kon buy bëreeti am cinq avertissement moom da nga ñàkk sa combat. te sax waxuma la loolu yaakaar naa ne bu 3 yi matee est ce que duñ dagg sa 15 pour cent sax booleel la ci. waaw 3 yi bu matee dagg 15 pour cent boo amee 5 perte sa combat. am na solo ba mel ni kon lu bëri jaar na ci Tapha Gueye ñu koy nuyu. waaye nag ñëw ci Omar Kane record yëgle kay. waaw record nee na daal daa am ku mu waxal sax mooy coordonnateur bu Parcelles Mbooloo muy Sagne waaw Sagne daal nee na rëg-rëg mënee su koo bañ ci làmb actuellement waaw loolu mu wax nag wax la joo xam ne nii xëy na am na mu ko teg waaye rëg-rëg man euh, na làmb nag danañ dugg maas damante la mais am na mbër yoo xam ne nii tey ah seen diggante ak rëg moom nit mënu ci dara làmb ju war a am la parce que li tax mooy nag am na lu mu wane si làmb xëy na am na ñoo xam ne dese na ko tuuti bu dee ay Modou Lo ay Balla gay ay euh, ay ay ay ay ay Gris Bordeaux ay Tapha pour mu am ci ñu adversaire dina xaw a jafe mais génération ñoom Sa Thiès bii ay Yékini Junior ah, ay Garga Mbossé ah ñooñu moom àlla kuleen seen diggante rek fi mu nekk nii ah mënee su cee mënee su ci dara de buñ ko deful tam coow dina bëri de ndax nag euh, ay ñoom Malick Niang ñoo ñëpp ay ñoom Boy Niang ñoo ñëpp ku ci ne tey rëg booy bu di ko sóoraale parce que ñoom ñoo ñëpp kenn amu ci combat te Reug Reug mu ngi ci seen kaw Ama Baldé moom xëy na xaw na génn tuuti ndax yàlla def na am na combat donte combat ba ñaa ci coow naan dina am du am ñu ñaan mu am waaye xam na da Reug Reug ku yóbbu daal ko ragal wa ilaa bokk mu am koy féete waaye jël ko léegi gën a wóor ñàkk ko jël waa ñi ko day xam naa ne mbër la de Reug Reug ah biram <laughs> Reug Reug mbër la de jërëjëf kër ci noonu lañ leen di tàggatoo di nuyu ñu ñuy suivre ci internet bi waa États-Unis waa Ngunjaan Pay Joor Samel ak waa Càngaay di nuyu waa Aguyaay bu baax di nuyu suñu chéri Teddy ah, xam naa mu ngi ñuy seetaan ci internet bi Babacar waa Aguyaay yëpp vraiment ñoom Ndour ah fans club Babacar bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom Ablaye Ndiaye vraiment su ma limee Ablaye rek li ñuy des danañ xam seen bopp. ah olago yàlla pangol yi brassar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye tam nuyu tund bi yëpp mboolem ki ñu siiw ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu waaye nag di wax corona bi yàlla na dem ak jàmm bañ jàmm amin barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla na dem ak jàmm maa lay nuyu tamit di nuyu waa Ngunjaan yëpp waaw ñoom Ngunjaan Ngunjaan yëpp maa leen di bégg di leen ziar parce que bëri nañ fa ay soppe kon képp kuy doomu Ngunjaan foo mën a ne si àddina bi rek Babacar mu ngi lay bégg di la ziar di nuyu tamit comme ni nga ko waxee fans club Babacar bi ñoom Grand Laye ñoom Cédric Marcelin Jiga xam nga Pape ñoom ñëpp Asi ah, Diagne ca Mauritanie du ma ko fàtte mu ngi ci biir ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg di leen ziar mais tamit di bëral mu nuyoo moodu moodu yi nekk à l'étranger tey du tudd turu kenn mais dama naan les moodu moodu ak fu ñu mën a ne ci àddina bi parce que li tax mooy metti na fi waaye tamit metti na ci ñoom ndax koo xam ne da nga daan yóbbante sa kër di yónnee tey am na ci ñoo xam ne ni ku ci amul woon foofu sa liggéey mën naa mu taxaw parce que génnatuñu boo yoroon magasin di jaay wala nga yor di ambulant wala nangam nangam yooyu day xaw a metti kon ñoom jàpp ñu jàpp ne daal ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax te man Babacar maa leen naan jërë ngeen jëfati yéen muudu muudu yàlla na seen jàmm yàgg yàlla na lii jeex ba ngeen demaat seen activité parce damaa gis ni may soutenir man biram li may wax parce olof ne la mu saf ko ko ma ca ko xam mm. kon képp ku nekk sama waaja ngañ sow borom kontiku ca États-Unis ak sama doomu ndey sama rakk Youssou Ndoye l'international ak Saliou système l'international biram yàlla na ñëpp am jàmm barki nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam amin Babacar ñu jox leen dig daje suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf